وينك يا ضريح الأمجد عرض يسير على طريق تجددي بيني وبينك يا ضريح الأمجد بيني وبينك يا فريح الأمجد عهد يسير على طريق تجددي فلئن أيت الخيال تزورني ولئن أتيت فرغبتي في المشهد إن البسيطة في تكاثر أهلها قل وأن نظرك أنفع موردي إن البسيط سقط في بكاء قل وأن ذراك أنفع موردي السلام عليكم في موقع التاريخ قدامنا من برني ففدراسيون بواوام كلفو قمك الشيخ سيد أحمد تيجانسي doomu sang bu tedd ba ابو Aboubacar Sy pour mu waxtaanal leen ci mbirum l'islam ba 10 heures jotee lépp lu bokk ci fédération bi ci aju ci biir Sénégal teew si na ci place bu mag boobu ci bari ñu nu tuddee ko place de l'indépendance pour ñëw déglu ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si ba 11 jotee nag ci la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si yegg si ca place boobu fa la fekk ñëpp toog préfet ba député ba xam ni moom moo nekk responsable politique bu bari ñi ak képp ku xam ni kilifa nga ci région du Cap Vert tew ci ci béréb pour déglu ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si fépp fu xamni fédération ba amna fa daïra ca bok ci Sénégal ci biir Sénégal yépp ñoom itam ñëw nañu fa pour déglu ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si doomu sang bu tedd ba Seydi Aboubacar si nu bàyyi leen ak Alhaji malik Cissé ba ca kanam nu wax leen la fa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wax قارئ في صبحة تتوارد الحبات منها لليد إلا رجاء المؤمنين بقطبهم إلا المجاور في انتظار سرمدي عجبا لمعنى الكائنات وسرها عجبا لكل حقيقة لم تجحدي عجبا ليوم قد رأيتك مثدلا في حفرة عجبا لبحر ملحدي فنسيت حتى الواجبات مهيما وأبيت حتى الحق مثل مفندي ولمست جسمي بالتحسس فاعتدى جسمي مناب تألم وتوجدي ونظرت والدنيا أمامي ما بها أرض ولا شجر ولا شيء بدي إلا ضريحك والضريح لكلنا حرم وأمن ضد مؤذ معتدي إن الذي جعل الخلافة منصبا جعل الضريح لنا قرين المسجد وأقام بينهما هدى وصيانة وأتم حولهما أمانيل الرديء وطابتا تحتهما الحياة كأنما بعض الحياة لديهما في الأسعد ba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si laata jël kàddu ga سيدي عبد العزيز سي ابن سيدي ابو بكر دفنا فلي خامني كيب بيب نيت بوي كونفرنس دان لوكا ديفال واخ فكو الشيخ سيد احمد تيجان واخيت سي واخ جي مي بوغ واخ وانا فا الشيخ سيد احمد تيجان نو دغلو سيدي عبد العزيز بو دافي كون نك خينا دافا نيك ادا رك واي دانكا خاوكو مات بريزانتي لين كونفرنس بي ndax xam ngeen ko xam nañu ko duñu leen wax fan la jaar ak lan la doon def ak ba yegg si fii kenn ku nekk yàq moom ba mu jógee léegi ba yegg si fii mu yegg si fa tabaarakallaahu kon nag li am solo rek moo di ñu déglu ko déglu ko ak suñu nopp taataan ko ak suñu xol man jariñoo li nga xam ni moom la ñuy wax te dana ko kontaan lool lool muy yëg ni li muy wax nit ñi ñu ngi koy jariñoo waaye itam su fekkee ne su waxee bu demee bu nu dajewaat ak moom du gis dara lu changé ci suñu melo du tax mu kontaan ci waxam ba tax na kon dañu koy déglu ak suñu nopp di ko taataan ak suñu xal suñu fi jógee di ko jéem jariñoo bëgg jariñ nit ñi moo tax ku ko bëgg gis doo ko gis ndax itam dafa am loo xam ni ku bëgg fu nit ñi nekk nga nekk faak ñoom bu jariñ leen jotee doo leen mën a jariñ te moom mi toog dafa am lu mu waxoon dafa waxoon ni fu ma la lu ma wéere naa la ko laaj lu ma soxla nag ma ko fajal fu ma tollu di la gis nee mënula ànd yooyu ñett mënul nekk lu ma réere naa la ko laaj lu ma soxla nga fajal ma ko fu ma tollu di la gis mënul nekk loolu moo tax du ngeen ko faral di gis ndax lii la gën a ittewoo te mooy li am solo su dajeeg yéen jox leen njariñ ngeen yóbbu ko di ko jariñoo ba mu soobati yàlla ngeen daje ak moom et ci loolu mooy liggéeyam ku nekk xam na ni moom benn liggéey bu ëpp gis waa Sénégal yëpp baax mel nañu war a mel rawatina njabootu lislaam bi rawatina njabootu tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani foofu nag la Seydi Abdoul Aziz doomu Seydi Aboubacar sang bu baax ba tëdd ca Tiwaawan joxe kàddu ga nag Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si conférencier bi fekk àddina bi yépp teew di ko déglu di xeramtu ay waxam nu bàyyi leen ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dafa mel na gannaaw eh, binu nuyoo sërigne abbas cubb nuyu njaboot yi nekk ak moom njabooti dayre yi njabooti wëllëre yi nuyu mbokki taalibe yi mbokki wëllëre yi fi daje yépp nu ngi nuyu suñu kilifay bopp yi ñu fekk ci dëkk bi ni ki Babacar Diouf mi nga xam ni sunu kilifa la cig wàll di sunu wëllëre cig wàll di sunu mbokk cig wàll nu ngeen nuyu itam ñi mu àndal ñépp ci wàllu liggéey ak wàllu taxawaay te di ko jottali moom Babacar di jottali kilifa yi fi daje yépp cantu njaboot yi tabarkalla dafa mel na waxtu wu nekk nu wax ko waxati ko su yàlla dogalee nu am leen te di ay njaboot te lépp lu nu nekk seen loxo ci biir ak seen ndimbal ci biir du nu mën nag lu dul yéene leen jàmm ni nu ko yéenee sunu bopp yal na nu yàlla boole defal jàmm mu mel ne itam que ñu caa jiital ci cant gi mooy président mi nga xam ni moo nu bokk yulit teg ci premier ministre am teg ci waa gouvernement bi yépp ci seeni yërmandeeg seeni taxawaay ak seen bàyyi xel ci wëllëre woon démb muy dox ba tey yenn yàlla may nu kattan nu mottali ko njaboot yépp kontaan nañu Serigne Abbas kontaan na bu baax nee na tabarkal la seetaanu leen ko ci dara te xam nañu ci dara bu ngeen ko seetaanoon bu nu dikkee du nu am fu nu toog ndax taalibe barewul kàttan waaye ñàkk seetaan na tax yàlla defar yëpp yal yàlla yàgg defar yëpp mu mel ne itam dañu jëm ci wàllu waxtaan waxtaan yi nu daan waxtaan ci cadre daara ndaxit dañu wax ni lu ñëpp fecce dof jékki waaw lu ñëpp fecce dof jékki dof moo gën a jekk ci fecc kon nag bu ñëpp feccee lu muy jékkeeti waaw waaye nu itam ah comme kenn ku ne la nga am nga yóbbu ca marché ba te noon daara rek la am bu daje daara jotee nu daje rekk sànnente ci ay kàddu waaw eh, tey nag kàddu gi ci sànnent mu ngi dellu ci li nu daan wax rek mi ngi dellu ci lislaam ci nekk gi mu nekk xam-xam ak nekk gi mu nekk jëf ndax réew mi mook réew yépp a yem e, jamono bi doy na waar ba tax na kenn ku nekk la nga nekk su ca sa xel dalee rekk booba da nga nit waaye ni jamono bi mel kenn ku ci nekk la nga nekk sa xel waratu ca dal maana xel mu dal dafa waral toog te kooku nag musiba la dëgg la gëm yàlla ak pas-pas ci wàllu yàlla moom nee ñu ku ko am tëdd waaye nag itam du noonu waxin la rekk waaw kooku waxin la rekk waaye nag itam lislaam ci nekk gi mu nekk xam-xam ak nekk gi mu nekk jëf dafa xaw mel na fokk nu waxtaan ci ndax kenn ku ne lislaam ngay waxe lislaam ngay waare lislaam ngay jàngale ñi ko waxe ci réew mi kenn xamul nañu toll ñi ko jàngale kenn xamul nañu toll ba moo taxit e rek xanaa wund wu nekk ak tojinu bopp janaxam xam waaw su ko defee nag léeg nga gis xale bu amagul juróom-ñaari at ni la papa Cheikh xam nga lu ñu ma jàngal tey ca école ba ma ne ah, mu dal di nerateet tari aaya nerateet tari xadiis ma xam ni aaya ak xadiis kenn du ko jaay ci réew mi koromb rek xam na ko waaw dégam xale yi dalagul jàng ñoo koy tari ci mbedd yi ba tax na yàlla nee na yonent bi nee na ndam nekkul foofu waaw ndam mu ngi ci xew-xew yi ci àdduna bi yitteel la ba boo dee wax ni yàlla nee na walla yonent bi nee na fekk da ko jàng wala da nga ko seet bi lil xawadis nga seet ko ngir xew-xew yooyu xew ci jamono e su ko defee nag su dee wàllu lislaam dana yomb ci ku fasul yéene yenu dara dana yomb ci yow dana yomb ci ku fasul yéene xam dara dana yomb ci yow dana yomb ci ku fasul yéene di dendale yëf yi ba xam ci lu jaar yoon ak lu jaarul yoon waaye it soo seetee ni réew mu nekk tey boo dee réewum jullit yaa ngay seet noo jariñoo sa alquran yaa ngay seet noo jariñoo sa xadiis ah bindkat yépp jóg di ci bind waxkat yépp jóg di ci wax ngir jaaxle jullit bi nga xam ni bés bu ne mu jaamu yàlla du ko tee jaaxle xamuloo ni ndax dafa am côté bu mu bàyyi dafa am côté bu mu bàyyi looloo ko jaaxal mag mi dëkk ci jàkka ji kurusam day nañ ñey waxtu wu ne am na lu muy jàng te foo ko fekk mu dégg mu lëf la lëf la de su fekkoon foofu rek la ko yàlla yemloo kon kon du deme noonu waaw wante daa ci dem dema dema dem ba nam ma julli ñeenti rakk bu dee ca ñaar ba nga sëlmal te doo ko yëg waaw lëf la xamuloo ni soxla yàlla ak soxla jaam yi def dul benn ñaar la fokk ñu teqale leen yàlla li moo foor yépp boo labee ci soxlaam bàyyi soxla jaam yi dana saxe ba sa xel du dal ba faw waaw su ko defee nag mu mel na boog bindkat yi bind nañ ci ñi naqari deret bare lu ñu xuloo dem nañ cee dema dem ba wax ni jullit yépp dañu war a dellu cosaan ana luy cosaan jullit yi mësuñoo jóg ci cosaan waaye cosaan la ñu nekk la mu laaj ñu boole kook moom kay la war a set ko gis muy bind ni dañu wara delu ciosan rek jaxlé mo dik ci kaw né ciosan ma su batana xamna na dana xaw deme ni wax mom mok minde yem te na ngeen ko jangé ci sen maqamatul hariri arab dañoo léeb ni gor gor la fekk bindul mbaamu wax waaw arab ñoo ko léeb gor gor la fekk bindul mbaamu wax bu bindee mbaamu wax nag di jaamu ñépp ndax ku jàng mbind ma walla nga déglu wax ja am na loo ca d'accord am na loo ca d'accordul kooka nag jaamam nga waaw loolu la arab yi wax te ñi am xel ñépp d'accord nañ ci moo tax bu nit ñi xëccoo rajo bi ma ne dof lañu rajo nattu yàlla rekk a war a tax nit di ci wax waaw soo demee ba di ko xëccoo tegtal la ci nit du nit ndax loo xam ne bu génnee ci sa gémmiñ ngay jaamu ñépp kenn ku ne seet ko ba xam nit nga walla doon nit kii xëccoo ko ci la gàtt xel yépp ndax deme naa ni ci xam-xamu àdduna ak xel rek kenn ëppalewu ko général de maa ngi jàng benn téere bu ñu def ci moom démb muy wax ki ko def ci moom ni ko am na loo ci def dindi ko mu ne ko lu tax mu ne ko ay kàddu la yu jóge ci man te fekk jànguma ko ñaari at ak ñett te man bu ma sañoon bala ñoo wax sama kàddu fekk la ma génn jàng naa ko ñaari at ak ñett di ci fanaan di ci gont ba xam ni bu génnee sama manqué du feeñ mu sog a génn yow nag yi nga génne def ci bare yu ma wax noonu rek te seetlu ma ba xam teg naa ko ci dëgg wala teguma ko ci dëgg waaw moo tax nga xam ni ñi xàmme duñu ko xëccoo bu dee nattu nag li Maodo Cheikh El Hadj Malick wax ni ku yàlla nattoo nekk sëriñ waaw nattu la xamuloon waaw fa ala man ibtuliya bil mashixa la wax ku ko yàlla nattoo nattu la jàngoro la nekk sëriñ jàngoro la waaw ba tax na eh, soo ko xamee noonu doo ko ñeme waaye bu la yàlla nattoo nag nga ñeme ko tiit dañu ca agsi mu mel ne itam léelée waxtaan yi dana di àgg foo xam ni léeg nit wax ñu ni dafa mel na bàyyi fi li fi mag ñi bàyyi woon nangam li fi mag ñi bàyyi ku nu ko gën a xam amul waaw ndax ci la ñu judd ci lañu ñu ci lañu ñu jànge ci lañu ñu gimmee te euh, la la waykat ba waxoon woykat ba dafa bëggoon benn doomu tàntam bëgg ko denc te bokk na ci jikkoy arab nag soo dee bëgg soxna dañu ko tardeel di ko tardeel ba ci kër yu mag yi dana ci xew ngay bëgg soxna ñu di ko aj kori ga di ko aj ca gàmm ga di ko aj ba dangaa dem ba danga cee tay waaw ba tax na suñu àggee ci loolu ñoom ci jikko arab daan nañu dem ba salit di woy am na ci koo xam ni e, dafa nekk di xalaat di xalaat di xalaat naka la ngorom gi di sottee ba fajar ni tàcc picc ma woy ca kaw garab ga mu ne ah ñàkk naa waaw ñàkk naa ñu ne ko lu tax mu ni picc mee xam li mu bëgg moom mi xëy rek yuux waaw waaw moom mi xëy rek yooxu moo xam li mu bëgg man mi fi nekk di tiitaru xamuma li ma bëgg waaw falaw falaw qabla mabkaaha falaw qabla mabkaaha bakaytu sababatan bi shafaytu nafs qabla النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم Out. waaw waykat wi wax ni bu fekkoon njëkk bi moo jooyaat dama jooy ci sooda mi ma bëgg sooda turu jigéen la kon daal danaa mën a faj li ci xol bi bala ma rëccu wante nag jëkk na ma ko def ma daal di wax ci sama waxu bopp ni moom waykat bee ko wax ni daal alfadlu lil mutaqaddimi kon nak dal ngeenel ki la jitu ci mbir moko mom lolo tax du nu rere ci ru magni wa fa qultu al fadl lil mutaqaddimi sheikh al haj malik waxni dagan na ci way wante daganul ci tawhid wax ni ñi jiitu ñoo gën nit ñi nee na dagan na ci way waaye daganul ci tawxid ndax yàlla la ma amoon démb ba tey loolu laa waaw waaw waaw lolo tax mas naa ci def ben qasida bima bima jange place bobu rek la ko jël def ci qasida ci cheikh al khalifa waaw wax ko niko wa qablaka kana al alfadlu lil mutaqaddimi waaw wa anta alladhi ghayyarta hukma xukma taqaddumi waaw mani cheikh al khalifa ya ya dindi bobu atte bi nga ñëwagul mak ñi gënon wante bi nga ñëwee nag mag ñi gën a tuñu waaw waaw waaw na li Cheikh El Hadj wax ni dagan na ci way wante daganul ci tawxiid mën nañ ko nangu ndax itam mag ñi am na ñu leen ëpp responsabilité mooy ñi xam li ñu xamoon ba noppi jamono bi soppeeku ba àgg fi ñu bëgg tollale li mag ñi wax ak li xew tey ñoo ñoo ëpp mag ñi responsabilité waaw ah. benn werante nekku ci waaw waaw ba tax na fokk ñu natt lan mooy mooy gàppu xam-xam ci lislaam ak lan moy gap jëf ci l'islam euh mu wax ni l'islam mbir mu ne su dee xam-xam su dee jëf dafa ca woote yadcu qabla kulli cheyin ila al biljamil al itiraafu bil jamil nag moo di nangu njekk nangu njekk njekk ku ko nanguwul yaa jur njekkar waaw moo tax li lislaam jëkk woote jëme ca loola moo di nangu njekk njekk yi yàlla jox nit ñu war ko nangu bu ci ëpp doole moo di xam-xam euh, xam-xam mooy njëkk bi féete njekk yépp kaw nangu ko nag mooy xamlu ko waaw nangu ko nag mooy xamlu ko soo ko xamluwul naka nga ko nangoo su ko defee e, dana woote ilal i'tiraafi bil jamil xanaa bokk bi jamilil ilm eh, eh, eh, njëkk ga moom xam-xama mu bëgg it nangu gi nga ko nangu suba su nekk mu yokk ndax looloo ci war naka lay yokkoo suba su nekk moo di nga nangu koo jëfe dina woote itam moom lislaam ila nutqi bi ujubati alxayaa bi ujubati alkawna lu tax taqdisan wa tabjilan lil xaaliq dundu kéemaan la bu nga xam ni képp ku ko gisee ni kéemaan la war na nekk sellal gi nga sellal turu ki tax mu nekk kéemaan magalitam itam jëmmi ki tax mu nekk kéemaan boo ko ca xàmmewul boo ko ca xàmmewul boo xamul ni dund kéemaan la naka nga cee yéemoo mënul nekk ba tax na soo seetloo alquran ci li mu jëkk waxante ak yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam diŋ ci dégge lu bare te moo di iqra bismi rabbika alladi xalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم nee na euh, waxal yàlla ni ko yàlla maa ngi laa mooy tey ngir sama doyadi sa jaam la lépp loo di def rek def ko ci turu yàlla ndax ci gëm la bokk yàlla topp ak mooy la bind kay bu teyee nga topp ëllëg nga moy bu ci ne boo ko dee def rek ni ko ci sa tur laa ko def waaw waaw su ko defee mel na ni dañ ko wax loolu mu ni lu tax yàlla war ci moom may def ci turam mu mel na dañu ko tontu boo kellaaj booba ni ko ndax mooy ki nga xam ni moo bind nit comme moo bind nit nag nit warul def lu mu boole wul ak turam euh, mu ni moo bind nit ci lumbu deret naka la bind nit ci lumbu deret foofu nag la ñiy wut ñépp ci wàllu médecine ak wàllu leneen ak di tëral ak di tëralaat mënuñoo dox ba génn foofu waaw nga xam ne boog ñoom itam seen coono ba jaamu yàlla ëppatu ko waaw ndax xalaqal insaana min alaq naka la deme nga topp ko ba faw ci liggéeyu yàlla nga nekk waaw su defé iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam lépp lu aju ci njàng luy neexal xam-xam mo xam loy bind la yal na fekk sax la nga bind amul wante fexe nga ba sa xel teurel ko moy fen wu dagan mom lañuy wax mad al maddatul khatabiyya ci walu mantiq bind lu amul waye kuko jang kontan gindi ko ci fen wu dagan la moo ci la romancier yi di sukkandiku di bind seen roman yi mu dagal dina am roman bu nga xam ni ci xaqiqa lañ ko teg mais am na roman bu nga xam ni boroom moo koy xalaat rek jeneer ko ba bind ko pour nit ci man ñi jariñu nekkul mais duñ ko ko bindal ci bàkkaar lu tax dafa dugg ci almaddatul xatabiya moo tax lu nekk bàkkaar ci la waykat yépp dugg li ñoo wax ba di ci xuus ba mu sore yooyu yëpp kenn du leen ci bindal bakkaar ndax àllama bil qalam ci lay dugg waaw ci lay dugg àllama bil qalam ci lay dugg yooyu yëpp nga xam ni wàllu xam-xam boog ci njël benn wax ji rek yéppam dugg na bi ci wàllu recherche scientifique dara desu ci bi nga xam ne nag wàllu littérature rek la ca la way dugg ca la jeneer dugg ca la leneen dugg yépp dagan na yépp nag euh, Cheikh Sukayrij am na benn téere bu mu bind tudd na ci xam-xam yépp waaye ci biir jamono xam-xam yépp dagan nañ ci biir jamono waaw xam-xam yépp dagan nañ ndax nangu naa ci lamiñu Cheikh Al mu ni seen maam nee na démb lañ njabar aramoon wante tey dagan na waaw mu ni ndax ku ko boolewul ci say gànnaay ku ko man léejale waaw waaw ku ko boolewul ci say gànnaay ne naka ko man léejale looloo tax ni mu ñu daan jàngalee euh, alquran ak hadis noonu la nu daan jàngalee njabar waaw ah, waaw benn werante nekku ci nee su ko defee nga xam ni boog eh, noppalu daal waratul kenn képp kuy woote ni ci lislaam nga bokk bés bu nekk li Cheikh Al Hadj wax nee na metodam mooy moom bés bu nekk mu am bind benn bind ba sëriñ jàngal ko ko walla gisul sëriñ bu ko tane ci wetam moom mu seetal boppam dend ak keneen werante ci ak moom ba dëgg génn ca walla gisul ka ca tollook moom ci wàllu werante xëy na doom yee fi nekk mu di leen jàngal jàngal bi mu leen di jàngal fàttaliku la mu jàngoon la muy bind ci moom ba tey rekk waaye nee na bés bu xëyee rekk am bind du jëlal mukk loolu la Cheikh Alhaj Malick waxoon waaye jëlal moom musiba la waaw su ko defee nga dégg ci ni yàlla boog bi mu bindee mbindeefam mu di mbindeef bu mu fonk tudde ko nit waajal na ko waajtaay wu mën a tax bés bu nekk xamam yokk ci bu ci yitteem àggee bu ci yitteem àggulit mën na fexe ba bés bu nekk xamam wàññeeku waaw ba tey mu musiba rek ndax itam nee na am na benn aaya ci alquran ngeen di ko jàng nu di ko jàng nee na boo ko seetloo ba ci biir rëy ga wa huwa alladi axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna cheyan wa jaala lakum alsamca wal absara wal afidata qalilan ma tashkuruun qalilan ma tashkuruun waaw waaw ndax alshukru mooy al ictiraafu biljamil نون لنج كوي فيري تي توحيد الشكر مودي الاعتراف بالجميل يالا نينا بور بوبولي مولين ген جامونو يمو لين دي ген تي بير ويجور يي فيكول نين خماغوم دارا واي بابا فك نا مو ديف تي يين يي ورا بيج خام ال واو لولو يالا تك نك ني قليلا ما تشكرون نينا دال مسوما غيس ku néewu cant comme yéen waaw nga gis boog ni li ñu wax ni xam-xam njëkk la te njëkk dañu koy nangu dugal na yépp waaw su ko defee bu yàlla ne nopp a ngi ci yéen bët a ngi ci yéen xol a ngi ci yéen tegtal na ci ni jox na joxe na ay jumtuwaay yu ñu mën a gis ak ay jumtuwaay yu ñu mënul gis jumtuwaay yi ñu mën a gis mi ngee sàkku xam-xam te mooy nopp ak bët ca fa ñu war a yem ñoom ak jumtuwaay bu kenn gisul te moo di xol moom itam mi ngee sàkku xam-xam ca fa mu war a yem moom itam waaw nena muy jumtu way yo a lamb ak yo mënul la lamb faatabiru ya ulil absar waaw faatabiru yàlla ne na ngeen réfléchir waaw mun ya waxuma ñëpp kat ya ulil absar la wax yéen ñi am intelligence su mën réfléchir na ngeen réfléchir waaw waaw ñiko sakku wul wutuñu ko sama responsabilité jeex na ci ñoom ba mu ne faatabiru yaa ulil absaar la wax waaw nga daal gis ni boog fa ñu jëm yépp ëppul nga jooxe faratay sant nga jooxe ko pour jëme ko ci ki yeyoo cant euh, cant nag dafa yemul fenn rek wa qalilu min ibadiya shakur اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور غورغي موكو دان فيري euh نانا شاكر موي كيغا خامني بو امي سانت بو امول جاب نجامورم nee kooku Shakir la tudd wa qalilu min ibadiya shakur yàlla nee na xam naa ci nit ñi ni ñi ci nekk shakur ñu tuuti lañu shakur mooy ki nga xam ni bu amul te it fàttaliku ni yàlla ñëwoon na démb nee na kooku moo di shakur yàlla nag nee na ñu tuuti lañu waaw ñi xam ni daal bu ñu amee sant bu ñu amul noppi ne ñoo ñoo bare waaw waaw ñu ni cant nag naka la demee ñu ni moo di kéemaan gi nga xam ci dund ni yàlla def na ko ci dund la nga ca xam yéppul noppeeti wax ko ko dendal booboo ci jëkk moyen itam yi nga xam ni yàlla nee na ku ci sukkandiku man nga amal man nga fexe ba xam-xam soppiku jëmm nit ñi gis ko nee na moyen yooyu bu ca benn des wut ko ba mu sotti te xam-xam fokk mu nekk jëmm ñu gis ko waaw booboo ko ñaareel ba ca topp yitam mooy lépp loo xam ni danga koy atte nga fexe ba atte ko mu dëppoo ak nekk gi yàlla nekk kenn nga delloo yépp ci moom ki def lu baax seetal foo ko jaarale ba gis ci moom euh, euh, kàttanu yàlla ki def lu bon seetal foo ko jaarale ba gis ci moom kàttanu yàlla lépp looy def ci àdduna looy tëral ak looy àtte delloo ko ci yàlla mi nekk benn lu ci ne bala nga ca jublu fekk na élément ya nga ca war a am yépp am nga ko ca nga dàq sa bakkanu bopp ak sa bëgg-bëggu bakkan ak sa mer ak lu mu doon soog a jëm ci àtte àtte ba su ko defee dina dëppoo ci ni yàlla moom ñi ñii moom moom ñële waaw nee na loolu nag cant soog a dikk waaw nee na jàng nañ ko ci ci ci ci aaya bu ñu ko jànge ñun ñëpp tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا واو الذي خلق الموت والحياة وما فيهما من الحقائق واو لتخ ليبلوكم أيكم أحسن عملا واو يلا نينا كي أه. تي لخم رجل نك نخمو أتن لب nee na ki àttan lépp rek moo sañ ni may buur waaw mu ni nag li tax ma bind dund ak dee neena na période rek la bu nga xam ni dama leen ciy nattu seen seetlu euh, li sama cofeel bind loola lu mu mëne bu jamono nattu ba jeexee rek mu jeex mooy li ñu naan nit judd na dee na kooku amul beneen werante moo tax ñi gëm diine duñu mën nangu ñàkk nangu ëllëg waaw su ko defee nga gis ni boog euh, l'islam ci boppam mission bu réy bi ci cadre xam-xam bu wér ak ci cadre jëf juy jariñe rekk ci la nekk nee na boo génnee xam-xam bu wér génnee jëf juy jariñe nee na mbewte dugg nee na bu mbewte duggee nag tooñ nga yàlla nee na xamuloo li xew di àtte ci la ci la mbewte yem xamuloo li xew di àtte kooku ci la mbewte yem waaw ba tax na nee lislaam daal li tax mu jóg nee na ajuwul ci benn jamono bàyyi jamono ba ca des nee ajuwul ci benn place bàyyi place ba ca des لأن دفع نكرك رحمة للعالمين دفع نكرك ذكرى للبشر يلا نينا لول رك لا نيت يعني لي تخا الاسلام لف لو لو خامني لو خيو خيو جامونو باري باري ميغي اندك ياو لو جامونو سوبيكو سوبيكو ميغي اندك ياو تيتام نينا بن برينسيب رك لا امي لو جامونو سوبيكو سوبيكو mu di ko ca doxal te moo di dafu sayyiati billati hiya ahsan waaw jamono ju ne la ca ñaaw jarul nga nekk fa di ko sow fexeel wut lu rafet lu toll ni moom wacc ko ca wetam rekk waaw kii rek la comme que yow nee nga lu ñaaw neexu la bu fa nekk di ko xeex parce que da ngay ña ñàkk da ñàkk li góor gi daan wax nee na mbooloom daqaar ga moom la Cheikh Khalifa daan wax mooy principe liggéey dafa jot ñépp war a dem tool am ñu ni ñun noo lànk duñu dem tool dem tëdd ca taatu daqaar ga di nelaw ña demoon ca tool ya bàyyi liggéey ba ñëw tiim leen di leen yedd ba jant so waaw waaw su ko defee nag su ko defee tool yi dafa faf booy waaw moo tax principe bu am solo la dafa sayyiati billati hiya ahsan waaw ki ni daal bu xëyee taal bari ñi jarul xulul na waa bari ñi fexe ba kenn ku nekk rek ak beñuwaaru ndoxam waaw fu mu ko bëgg jafale rek ñu ñëw taxaw ak beñuwaaru ndox bi bu yàggee mu tayyi bay waaw waaw waaw nee na lu waral loolu nag lu tax principe boobu moo ëpp doole ñu ni nit daf dul kese kese nit ambassadeur yàlla la moo tax am lu mu sañ nag ak lu mu sañul inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bil xaq ñépp a ko bokk xamuloo ni ñépp a ko bokk kenn ku nekk xalifatullahi fi l ardi ga mooy sa responsabilité waaw inni jaailun fi l ardi xalifa waaw looloo tax nag mabda'u daf'i sayyiati billati hiya ahsan mooy sa wàll waaye daa dem ba nit ñi duñ ko nangu nag waaw daa dema dema dem ba kenn ku ne bëgg nga taxaw xuloog moom waaw soo ko defee rek yëpp tardé nee na wante nag euh, bu ñu nee nit nit ak nit lañu wax nee na ki nga xam ni dafa xëy rek ni dull dem tënku ji ci ay neen ba mu jeex nee na bokkul ak ki nga xamni dafa jóg rek wuti ay responsabilité waaw nee na kële ni dull ci biir neen yi rek fasul yene génn neen taxul kenn di wax nee ki nam ma yenu ay responsabilité moo tax ñuy wax waaw nee ba tax na yonent bi am na waxin yu mu koy wax kullun muyassarun lima khuliqa xuliqa la moo ko wax daf cee dem ba jéppi ñi jéemul dara moom yonent bi def ci dem ba jéppi ñi jéemul dara wax ni bokkuñu ci kenn ku ne la tax ñu bind la ca ngay ne waaw am na ñoo xam ni euh, nekk fi rek a tax ñu bind leen dong nag waaw nga séen leen rek xam ni ñu nga nele moo tax ñu bind leen waaye duñ carax leneen waaw euh, ñooñu waruñu am wéttal ñu waru ñu am wéttal bu ñu amee wéttal rek musiba am na waaw parce que rab yi sax duñu leen wéttali rab wu xëy dem ci sa responsabilité waaw kon nag yow mii nit boo ko bëggee wéttali foo jëm yaag mooma yem waaw nee na su ko defee li yonent bi wax ni kullun muyassarun lima xuliqa la ak wali kulli imri imma nawa Euh, kenn ku ne fa nga jëm ngay wol mburóom waaw ki jëmul fenn du wol mburum dara waaw lu mu yasarun li ma xuliqa wax na ci waxam bu gàtt ni kenn ku ne la nga yéene mooy yow wax bu am solo la wax bu am solo la kenn ku ne la nga yéene mooy yow ndax la nga yéene la yàllay sol ci sa biir ba nga fees waaw bu dee yiw jëmm ji yiw rekk lay doon ba mu jeex bu dee musiba jëmm ji musiba lay doon ba mu jeex mu dem lépp ko nag ci léeb yooyu mu daan def nga xam ni dafa am moom méthode yu moo jàngale euh, mu wax ni kaay ma nettali leen moom Muhammad moo ko wax mu ni kay ma nettali leen ñett ña àndoon di tukki nee na ba ñu demee ba lu mët a déglu la nee na ñett ña àndoon di tukki ba ñu demee ba naaj dab leen nee na naaj wi metti na ba dañu àndandoo dugg ci benn xunt nee na ba ñu duggee ca xunt wa bunt ba ñu jaar xunt wa jékki-jékki yëngu doj xawe ca kaw ñëw sakk bunt ba lu ñu doon daw naaj bu naaj wi jeexee fu ñoo jaar ba nee na ñu xoolante ni nu dey ba nu dee nit ba léegi nu ngi jàmm yàlla waaye it mësunoo fàttaliku fu nu wéete seet ndax am na wala amul sunu jàmm gi ci aada rek lanu ko teg mais mësunu ko teg mukk ci ngëm ndax mësunoo nattu yàlla ñu ne ay ca kenn ku ne na wax loo xam ni fàttaliku na ci dundam ni ba mu ko defee yàlla taxoon leneen raxu ko ba xam yàlla am na wala déet kii jóg ni man dey dama am ndey ak bàyyi ñu màgge ba mënalatuñu seen bopp dara ba ñu daan mënal seen bopp dañu daan defal seen bopp di ma defal léegi mënalatuñu seen bopp dara àgg na ak ñoom ci kër gi kenn du ndékki walla nga njoganiku tëdu ñoom ñaar def nañ ko ba noppi am na bés nag yàlla dogal njoganiku jot ma ñëw fekki leen ñu tëdd mel ni dañu for bët ma taxaw fa di xaar ñuy yeewu ba jël seen njoganiku ba noppi sama waa kër soog a jël seen njoganiku ma di fa nekk ba ñu xaw sore ca nelaw ya sama doom yu tuuti yi di yéeg ci sama tànk di wàcc te sañu ma leen a sidd te way jur yi jëluñu seen wàll ba noppi yàlla su fekkee ni bés bobule njëkkal way jur ngir sa jëmm a tax ma def ko raxuma ca leneen maa ngi seet ndax nekk nga walla nekkulu nee na ba mu ko waxee doj wa sakkoon bunt ba yëngu randu ba ñu gis ni randu na ki ci des jóg ni man de mas na am sama benn doomu bàyyi tëx bu jigéen ma bëgg ko jabar euh, position ba mu am ci biir famille am àgg ci yañu ma teg bare yeñu ma mettale bare yeñu ma gàntale bare ñu dema dema dema dem ba mbir ma dafa mel ni dañ ko mujj bàyyi waaye fekk na ma ñàkk ci moom loo xam ni dem naa ba wax ni bu ñu ko bu ma ko mayul itam te fekk mënoon naa mooy ak moom yàlla ngir ma dabaatal li ma ñàkk ci moom it doon naa sant waaye mënuma am ci moom bunt ndax dafa di doomu borom barke ba yàlla demee ba way juróomu góor way juróomu jigéen des fa yàlla atti yi natt wàcce ci seen alal ba amatuñu fekk na ma man ci sama diggu man man mu jóg ñëw seet si ma ngir tolluwaay ba ñu toll ba ma demee ba nga xam ni sama xolu fayu ñëw na te ma wéet moom wax ko la ma ko wax mu nangu ba mu nangoo ba noppi am na lum ma ca tegal dafa ma ni kaste yàlla ku ko nam ma fotti war na am loo bàyyi xel ëllëg su fekkee ni bayyi ga ma ko bàyyi tiitar taxul waye ragal bat bob muma wax sama ak yow motax tax na ma won ne am nga yow yalla nena na warandu lu tollu non waaw nena kiko ñettel wax ni man de masna bind ay nit di len fay weer yi ma wax ak ñoom ba mu jotee ma di leen fay am na ci kenn ku réer gisuma ko ñëwul jël si payam te liggéey na liggéeyam ma fay ña ca des yépp fayam may xalaat naka laa koy def ba mujj ma ne ah, moo ko def kon nag naa ko jël rekk soppandikoo ko yàlla dogal ma jënd ci ay jur jur yi jurante ba bare lool ma jaay ci jur yi jënd ci ay tool tool yi bare lool ma jaay ca tool ya tabax ci kër fafu waa ji sog a feeñ teer si waaw mu ni sama pay gi lay jël si ma ne ko li ngay séen ci dëkk bi yépp sa pay gi la mu ne ko bu ma fontoo wax ma rekk ana sama pay ma jël ko dem mu ne ko li ngay gis ci dëkk bi laa ni yépp sa pay gi la mu ne ko nag mu demee noonu mu wax ko ko mu ne ko kaay ma génn ci sa àq mu ne ko nag ëpp naa def yàllaa ko dogale noonu mu ni bés boobu bu fekkee ne raxuma ca leneen lu dul yàlla mi ñu ma wax ne mooma moom bu fekkee yàlla moomu am na na wane ne am na rekk xeer wa dal di yëkkati waaw ba tax na ba daal eh, li yonent bi wax ni kenn ku ci nekk kemtalaayu la nga yéene moom la yàlla di feesal ci sa biir wax la bu simple de wante wax bu am solo waaw ndax moom waxam dafay simple ndax wax dañu wax ni waxam dafa am li arab di tudde al asala shay'un asil waaw qawlun asil kalimatun asila da fay am al asala asala nak bato arab la xamna buñ ko don traduire ci tubaab originalité lay lay tollool waaw waxam dafa am asala ta wax bu xasse am asala borom du da fay nek fitra ci mom waaw waaw اخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ما فطره لاي فطره الله التي فطر الناس عليها ين ني جانغ ين ني لاميه العجم لاميه العجم خوما اصاله الراي صانتني عن الخطل جا بودن داو دنج لاكو تيل جانغال آه. اصاله الراي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل واو بارين نكو كو جانغ تي نداو تدوكو ديغ واو مجدي اخيرا ومجدي اولا شرع والشمس رعد الضحى كالشمس في طفلي خاوما فاتليكو نغين كوم ديت واو واو أصالة الرأي nena na xalaat bo boo xam bu bu am originalité la motax duma du arab dañ ko barele arab ñu mën wax lañu mais seen wax yépp du du compliqué dafa simple te bare njëriñ asalatu raji sanatni ni an alxatali ca lamiyatul ajam waxiliyatul fadli zanat ni ladal atali asalatu ray originalité xalaat ak pexe moma ñongal ba dootuma juum waaw takkaayu ngëneelit moo ma rafetal ba dootuma ba bu yëqool amee sama baat du yëqool waaw waaw ba bu yëqool amee yëqool mooy yëkkati sa baat mu gudd te dara takkewu ci nee na bu keroogee dana gudd waaye dara dana ci takke ndax takkaayu ngënee la tax waaw xam nga buur yi buur yi dañu daan takk collier waaw ngir bañ seen baat yëqul waaye nee na collier yooyu collier ngënee la ko gën waaw كوكو شرح مو ام صلو واو كوكو مو ام صلو مجدي اخيرا ومجدي اولا شرع والشمس راد الضحى كشمس في طفلي واو خم اك علل وتيام جيل بنت امول مجرك يقونا خم علل جدو نويم بتيام جيل بنت امول مجرك يقونا بعض وتأمني مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رعد الضحى كشمس في طفلي waaw kenn déggagul dañu naan jant bi sona rek diw deena ne looloo jekk waaye jant bi la leeralal yoor yoor fa nga toog bu tàkkusaane it mën na la leeral bu fekkee jant piir la waaw bu fekkee jant piir la rek na mu leerale ca yoor yoor noonu lay leerale ca takkusaan waaye bu sooyee nag sona foofu nag pexe nekkatu fi koy fexeel foo ci toll rek nit ñi di la mën a jariñoo daa wax yu nee na su ko defee mu mel ni boog jëf jooy jëf ak jëf ju mu manti doon jàppal ni euh, jumtuwaay la boo àbbee ca atelier yàlla yàlla sa atelier bii de bëgg naa cee dugg mu ni caabi jàngoog nga jël caabi ubbi atelier yàlla seet jumtuwaay yëppoog la nga bëgg a def nga ne ko yàlla bii laa jël mu ne demal bokk neena nag ñaaray mën a am benn nga génn tabaxe ko yàlla janook tabax ba walla nga génn màbbe ko la yàlla tabaxoon waaw waaw yow nag yaa xam boo cay jël waaw nee na te it nee lislaam euh, mënula dund te ci biir civilisation ndax dañu ne l'islam civilisation la wante l'islam daf fi fekkoon ay civilisation ñu ne l'islam civilisation la wante mën nañu wax ni lislaam du mën a dund te duggul ci biir civilisation naka la loolu di mën nekke moom civilisation yi am ca lay dugg seet la gën mu def ko ci ñoom li gënul mu jañ ko ba moo tax fokk mu dugg si ci biir aada yi mënul ñàkk moom lislaam su ko defee muy lañu leen junjoon ca tiwaawan wax ja yàlla waxoon ci li ilaafi qurayshin ilaafihim rixlata alshitaai walsayf falyabudu raba hada albayt alladi atamahum min juucin wa aamanahum min xawf